laa nawaan yàllaaw ñu ngi sant borom bi di julli si dem bu tedd bi sant borom Touba bam ñu booleeg Baye Aziz ba léegi lépp lu bon koy bàyyi yàlla sax ba keroog ñuy yóbbu Touba tuubi ruubi naa sant nañ la faal dootuñu la bàyyi yaa ñu digal ñu topp Bamba ba seytaane fi ñu koy yàqal ñu bala ñu wax onze billahi ñu ngi gërëm ñëpp ñu fi teew dëgg fa yàlla ñu ngi gërëm ñëpp ñu fi teew di gërëm waaw Aziz euh, Habib Lekran bu baax a baax ndax li yombul ay xale yu ndaw mu jox leen xaalis bu bëri xam nga ñu fas yéene jongante ñu ngi ñu ngi lekk bu baax ñu ngi entraîné ñu ngi si lu ñu war a nekk te incha allah am nañ yaakaar bu baax suñ demee si bés bi dañ si jëlee ndam te ñu ngi ñaan suñu borom yàlla may ñu ndam bu baax a baax di gërëm ñëpp kulluhum di nga gërëm mais dama ne la da jëm ci combat bu mag yéen ñaar ku ci nekk fii bi nga fi mujjee da ngaa ñàkk ku ci da combat bi naka nga fas yéene ñëwee ak naka ngay préparé combat boobu noonu parce que Saba ngi nii taxaw boo amee looy wax nag jàkkaarloog moom nga wax ko. waaw ku yokkul rek da ngaa wàññi lépp luñ doon def daal dañ ko yokku xam nga lépp ku yokkul da ngaa wàññi lépp lépp luñ doon def ñu ngi koy yokk xool lan moo ñuy may ndam ñu nekk si daal ak suñuy mbokk waaw ñu ngi si loolu daal ñaan yàlla may ñu sant ba tey yaa bàyyiwoon ngeen bëri fii adversaire bi kën nga aala mooy loolu noonu amul solo méttiwul quoi. dama tombé que euh, yére yi tilim. mooy loolu yow yére déclenché laa lay jox. Saba mënu koo fóor yére déclenché. daa amee gëres manqué rek. Saba Saba sa adversaire loo koy wax. kii li ma ko bëgg a xamal man stade bi dama fi am titre foncier man su ma neexoon ma tabax fi nii ci digg géew gi. titre foncier laa fi am. Ah. waaw. loolu la ko jox loolu la laa dëkk titre foncier laa am ci digg géew bi ma neexoon tabax fa néeg dëkk kon day yaru rek. mais booy damay gis yow booy bëri li lay topp lépp séerans. waaw man àdduna ñoo may topp man nekkatul koñ moo may topp de àdduna ñoo may topp Pikine séerans Dalifort Touba séerans Jaraaf lépp ñoo may topp. nee na ko Ngaaga. nee na Ngaaga nga. xam nga moom daa am nax ci man. Ah, moom daa am nax ci man gars yi dañuy wax rek. lu may xam si yow man sama bopp da laa kii mais sama bopp laa dëggal sa bopp comme li ma la wax ay dëggal sa bopp yow Ardo ngay wax dëggal sa bopp Ardo sio booy beng Ardo Ardang lu mu indi Ardo Ardang laay indi mu defaral la bagage sio booy beng mooy wax ak yow defal nang defal nang rek waaga ñaari boor la yaaya liggéey booy yaay booy dafa liggéey yakal na ma ñaari boor xoolal bii cere bii ñaari cin yow xoolal yow dama danga tombe gi lay tilim dama lay fóotee defal nang rek doyoo bay des yow doyoo bay des. di nga dem nag ci sa turandoo ñetti yoon man maa la ko wax. coow jubul man bañu ma loolu. xam man bañu loolu. xam nga la moo a ñor ndam maa ngi koy ñaan suñu borom yàlla moo ko may. seetaan nga booy bi a ak Mbagnick Kaïré fii. dañoo bëre combat bu yàgg a bu métti. donte Mbagnick daan na ko mais keroog Mbagnick dañ na dëgg ndax xale bu mu bëreen boo bëree moom à l'usure. day métti ci yow ndax waaw ndax combat bi day gaaw Hmm. man dama doole. naam liggéey dama doole. ma ñu nga wax wax sa baax. lu leer laa lay wax. Ah, waaw doole boo ñëwee léegi dafa bëri graisse. boo ñëwee dinaa la nandal fan dañuy lekk si ndawal pour mën a am doole. graisse ngay lekk baaxul. da ngay jël ma la wax da ngay wut. lan la lekk rek def naa lekk rek lan la lekk rek bu mu ngi am doole. maa ngi woo waa Dalifort. mais lan moo tax nga ne Ardo parewul yow. nga li may wax déggoo li ma la wax de li ma ko war a wax. déedéet bul jaawale maas ak doole. yow Gérés Gérés sonal. yàpp bi ngay jaay dee ko lekk. nga bàyyi di jaay yàpp di lekk Gérés. Saba woote la. maa ngi woo waa Dalifort. Eh, Salaam. Yara Déggo Seras waa xàll bi waa nag waa jakarta waa moto yëpp. daal waa saret yi. non loolu wax naa ko ba pare. ma la wax de. mais yaa waxoon yaa ëpp doole yaa mën. loolu ko léegi mu léegi mi ngi mi ngi nii man maa la mën maa yaa ngi dégg ma maa la dàq bëre. Ah, lépp lu góor déggoo li ma la wax. lépp luy foofu góor ko dàq xaw ma nag aaya bimbam eh. wala nangam yooyu ma mën nga ma ko dàq. mais lépp luy foofu góor man maa ko dàq. dégg nga bimbam du naa la war la mooy foofu góor. na moo la la dàq bëri. dégg nga ma na ma ëpp doole na mu mën loolu ay kàddoom la. waaw mais buñ daje buñ nee ruum bu mu daje. waaw ah. buñ nee. comprendre nee lépp lu góor du def rek moo la ko dàq. loolu ay soob la. te nawet ñëwagul dañoo bëgg a bëre ba pare mu soog a taw Ndakaaru. ay prix bam prix bam. déggoon ma la yooyu mën nga ma ko dàq. mais lépp luy foofu góor laa la. yow dégg nga fii nga am fii nga am fii nga amee kër fii nga am kër. toujours xeex nag. bu at lay nee xeex. bu bu la daajal lal. xam ne da ngay tëdd. ngay teg Ardo Saba buy nee xeex nooy def. fi indi fekk ko fi Ardo lay wax waxal. lu mu fi indi fekk ko fi wax man dama bëre ba tas man c'est pas hasard ñi di ma topp nii nii depuis mbapat la Ardo xale la euh, sama papa Malick Thiandou mën na seede li may wax amaana du ma xàmme ndax gaaw a màgg dafa am ak temps yi mooy la mais doomam màgget ñoo foowandoo benn koñ soxnaam xam naa ko mu doonoon nit bu baax si bi ba mu jugee si bi dañ doon tuur xéewal di jooy ndax jàmm ji mu dëkkoo la ñu kon xam na ma war na ma xam bu baax mais ay tut tànk lañ mënu ma bañ a xàmmee ba pare nag ñu bokkaat lël sant sant su waay di dund suñu aada di dund suñu culture ñun xamuñu lu bon ñu wax lu bon allahu akbar ay waa di woo waa parcelle waa ndax Izo Boy Beng la doomu parcelle boy golf di woo ñëpp rek di si daan jàpp jàpp di woo Lat Diop xam nga di woo Cheikh Omar Mbaye bu baax a baax xam nga te si jàpp di woo Lat Diop bu baax a baax di woo monsieur le maire Pape waaw di woo Cheikh Ibrahima ñëpp rek non ñëpp la ñu woo mais da nga may may ma woo gaay ay ñoom Sultra Italie Jibi Kayta keroog da ngeen koo tagg ba ñëwee émission bi Jibi Kayta da nga woo ak jabaram Alima yaayam seen waa kër ñëpp dañ si jàpp xam di woo Lat Diop di ko woowaat bu baax a baax a baax xam nga di woo diaspora bi su mel ne Omar Sultara waaw waa Daaru diwoo nag waa xàll waa nag yi waa sareet yi waa jagartaay di woo ñëpp di nag waa caamen di woo jolof jolof yi nga xam ne ñoo nekk daral yëpp di jàppale Saba waaw diwoo waa Foundiougne di woo nag waa Thiamène waaw di woo waa Kër Omar di woo nag waa Ndundur waaw di woo waa Saxaf Baabu du ma leen fàtte diwoo waa Saxaf Baabu bu baax di woo nag autorités yi nga xam ne ñoo may jàppale ñoom ñëpp waaw di ñoom